kon bala maa yeggali dama bëggoon rek nga déglu benn waxtaan bi ma dem numéro 2. Hmm. defal euh, le numéro kii suma xarit la ku baax la. dañoo liggéeyandoo kii moom dama ko fi bàyyi. Uh-huh. xam nga suma kër. Uh-huh. dama tabax kër somon. Uh-huh. bi ma tabaxee kër somon. yàlla def. may liggéey campagne bi. xam nga bi ma ñëwee géejawaay dama la ñaan set setal mm-hmm. ma dem Mermoz di set setal ba ñu yeew ma yóbbu ma faan ni dama dof yaa ngi mm-hmm. rappelé wu mm-hmm. ba ma ñëwee ba ma jugee faan daw dem crédit agricole yaa ngi film dem crédit agricole jël suma xaalis dama la woo géejawaay man la maa ngi nii di dem ngan ma ñëwal waaye man la su ma demee damay raté avion bi ngan ma demal si lépp dina baax ma am ma dem munuma nelaw munuma nelaw parce que munuma woon comprendre may bale mer di jëmbat garab ba tabax jàkka ñu yeew ma ni dama dof ma may bind may bind di bind may def le cheikh de Serigne Abdou Karim Mbacké et le Chapelet may bind léegi docteuru tubaab bi nga xam ne moom mooy faj dof yi mhm. ma dem fa jox ko suma livre mu koy liir mun ma kan mooy sëñ Abdou bi Mbacké man ko sëñ Abdou Karim Mbacké xaw ma ko yàlla rek ko xam mhm. parce que xaw ma la mhm. yow yaa ma romb suma buntu kër woo ma topp loo ma kaamil man la kaamil bi mënuma koo topp woo Mbay Sàmb doomu Ajaa Kolle mu topp ko ba mu jeex nga ñaanal ko mu dem Niger mu dem Algérie di jàng nga wooma ma ñëw ma dugg sa nga toog sa woo ma ma dugg sa néeg nga yëkkati gilet jox ma bi ma ko joxee ma sol ko juróom benn fan ma commencé di tukki di ñëw léegi déeb dinga ko déglu pour gàttal rek kii dama ko gis bibliothèque ma koy xool bi ma defee suma waxtaan ba pare ma màjjaal kenn faalewu ma kii gorom Ablaye Ba moo ma jox dara ak kanati euh, Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye doomu imam bu Mermoz Tafa Konaté waaw euh, kii nag kii moom dama koy delloo sama jabar dafa ni nga ñaanal ko si hmm. parce que yaramam bi ñu sëyee ba tey yaramam dafay metti dama mës a dugg Paris cabine hmm. ma woo la hmm. man la maa ngi nii dama bëgg ñibbi si am naa récépissé six mois nga ma léegi laa jóge tuubaa si lépp dina baax seytaane ni yeer suma xel ni ma lim la wax wóor na ma ñaari soxna romb kenn ki ñu xoolante mu mel ni dama gis jinne sama karaw gi jóg taxaw ma dem suma benn kër xarit man ko ki ma gis de def naa ni que suma jabar lay doon ma julli fajar jàng yaasin sëlmal mu wooma dama ni kooku yaa ma ko may dix-huit ans ba tey ñoo ngi nii juróom benn fan la ñu xamante ma sëy moom pour bañ a yàggal kii kaamil la dañ ko imprégné si parfum baa juutalu ko noonu xeñtu ko ko baax yaa ko moom yaa ma ba nga bind ngi noonu miski la kii moom dañ si ñaanal sama jabar te nag ma wax la leen bi ma ko jëndee ba pare dama ko jënd ba pare aw ma paas ci moo ne ma sa dama ko bëgg a gis maa lay jëndal billet moo ma jëndal billet tu comprends pas non c'est important bi ma jëndalee billet ma jënd ay parfum yu bëri pour indi ko mu woo ma mu ni ma de hmm. amuñu vingt-trois kilos dix kilos nañu am bi ma waxee loolu ma jël ñaari grand mbubb ala ana kii bi sax grand mbubb bii jabaru nuuru ayda nga ñaanal ko moo ma ko jëndal ma tegale ko bi may wàcc fii dix euro laa yore ma dugg néew ba Casa ma dugg Casa bi ma duggee ba Casa benn italien yi gis ma koo xam ne nit ku ñuul la mun ma ni nga laxasaayoo daf ma neex yëkkati cent mille jox ma ma def fii di du lañ naan la nationalité française mhm. takkuma jigéen pour am kayit sa ñaan moo tax ma am ko livre bi ma bind wax sa tur mhm. moo tax ma am kayitu tubaab sa ñaan deux bi doo ko def amiin yaa rabbi amiin ba attends Mbacke déglul lii rek déglul déglul lii rek lii rek doy na lu ne na ñëw waaye na ñëw si darajay alxuraan sëñ bi dama la bëgg Mbàkke Mbàkke dama la mës a mm. ma bëggal sa sa bopp Mbàkke dama jóge Fass mm. kër sëñ Aadi mm. ma ñëw nga woo ma sopp ma saa yoo ma rombe nuyu ma yokk ko ma dugg présenté ko Ndeye Samb ñu ko suba ñu tàmbal moom Mbaye Samba ñuy tàmbali. yàlla mu def une semaine. kaamil bi sëñ Abdou Karim Mbacke suñu jardin la Paris maa am huit cent de jardin. ko ba mu mat. mu jox ko kaamil bi. Mbaye Samba ñëw ne ma kër sëñ bi laa juge kaamil bi mat na. waaye sëñ bi de ñaanal na ma. ñu def ci juróom benn fan. Mbaye sàmb ñëw ajjuma parce que moo doon jàng alxuraan ci meru avant juma mbay sàmm ñëw ne ma ah man de sëñ bi de li ma ñaanal de nangu na man ko ah ba jàmm mun daal dama ñëw sama yaay ni ma ko suma nijaay ñëw na fii indil na ma bourse bourse bi nag dafa war a dem si dëkku naar yi jàng mu dem samedi ba ajuma bi nañ ko ko jox samedi bi la dem mu dem man kese ma def des fa nag wéet sëñ bi woo bi ma sëñ bi woowee ni ma looy def man ko man de defuma dara fii rek laa bëgg a neex sëñ bi ni ma sëñ bi damay toog sama du ma nelaw depuis 2001 ba tey du ma nelaw mu ma café ma naan damay nelaw tuuti yow di jàng alxuraan du ma nelaw dama bëgg nag dal nga ñaanal ma danga ma waxoon danga ma waxoon nekkuloon nit kuy toog suma wet. nit kuy dem la mais dama bëgg di dem di ñëw nag ñaanal ma loolu. taalibe ñëw ni ma kaay wuyu si. ah am naa kayitu tubaab fu ma neex dem si àdduna. ba pare toog fële rek mel ni esclave loolu liggéey joxe waat ko. te ma am kër di fay bon di fay loolu te du ma ñëw deux ans ngi di ñëw ma loolu rafet na. la.